Je fu que saisir Ousmane Sonko mo fa am exactement mais malgré cela dañ siy teug sen ay tank donc est ce que euh, yëf yi nu mu ni xalaat na ni réellement Ousmane Sonko dina bokk élection présidentielle 2024. man sama yàqin laay wax ak sama gis-gis ak sama analyse. Mm. man defe naa ne Ousmane Sonko jamono ju nekk ni Sénégal ku koy tere bañ a bokk ci élection yi ñu jëmee defe naa ne carrément waxu li nga xamante ne yow moom mooy lu neex sénégalais te nee naa la rëpp day rebondir ci li nga xamante moo di population du Sénégal parce que tey mënuñu concevoir li nga xamante mm. moo di askan bi seen bëgg ba nga den koy tere. Mm. askan bi lu ñu bëgg mooy ñëpp bokk ñu def ay élection yi nga xamante exclusive et transparente kuy gagné ñu xam ne kii moo gagné mais mënatuñu nekk fii nii di njuut njaaj kii di tere kii bañ a bokk wala kii amatuñ temps boobu noonu parce que askan bi boo xoolee jamono ju ñu nekk ni dëkk bi dafa metti la vie est chère problème jeunesse yaa ngi di génn temps bi encore ki nga xamantene mom la peut-être majorité de la population ça yaakaar pour mu bokk sax ñu ne kooku du bokk te man gisuma fi nga xamantene fi koy téré baña bokk. gisuma li nga xamante luy tere bañ a bokk Ousmane Sonko moom laa gisul parce que tey boo ñëwee si li nga xamante ne mais gis na yi ko euh, benn bi si buut yi euh, bi ñoom neneen ba tey dañagul gis na aussi Bassam ak Mame Mbaye Niang ak bi nga ko mujjee jàpp ni si wàllu vol de téléphone et tant d'autres et tant aujourd'hui euh, li pesé si kawam bëri na lool te itam gis na quoi qu'on puisse sûr Fallou damay revenir un tout petit en arrière pour xamal la kan mooy peut-être Ousmane Sonko ba tey parce que ñu bëri comprendre ñu bu ñu demee ba tey ki nga xamante ne moom def na 15 ans impôt yu demee kenn mënul gis li nga xamante ne moom la jël. Hmm. ñi nga xamante ne ñoom la ñoo luubal alasu askan bi def ay escroquerie def li nga xam mooy enrichissement illicite ñoo ñu leen ni permettre ñuy bok ci ay élection ki nga xamantene mom deful dara ñu naan koku du bok yow li nga xamantene mom lañ koy topé bo booba légui amul li nga xamantene ne ci trouver parce que bu doon ki nga xamantene mom lu mu def tëddee na li nga xamantene moy lu justice nango kon heure yi kenn waxatul mais ba tay kenn mënu la jox verdict final kon ba tay ñu ngi poser question te lepp fi nga xamantene ne jaar nañ fa ak avocat mi chaque jour Ousmane Sonko da ngay gis ni suñu borom da koy dimbali ba mom day am li nga xamantene modi deug donc ba tay deug bobu nonu comme fa la nek jusqu'à présent te ko fenn justice ba justice bi nga xamanté mom lañu tranché li nga xamanté xaar ci mom donc dañ koy japp ci que euh, li ñuy xaar parce que xam carrément passé euh, ñu euh, par rapport li nga xamni mo tribunal bu Ziguinchor li joggé ci tribunal bu Ziguinchor gis nga ko pourtant la juge bi accord mais accord bu juge bi joxe amna ñi nga xamante ne état du Sénégal ci bopom dafa génné génneewaat ay avocat ñu taxawaat daal di ŋàññ li nga xamante ne décision juge bobu non est ce que war nañ toll fofu hmm. parce que juge bi nga xamante ne mom mo yor compétence yépp daal di tranché li nga xamante moo décision décision bobu non ken mënu ci d'accord accord. Hmm. lu tax mënuñu d' accord si décision juge bi kon ñu xana ñun kon amatu ñu yaakaar ci justice bi ñu yaakaar. justice bi nga xamante ni moom lañ yaakaar. mais yéen a taxaw yéen a yéen a yéen a yàgg taxaw que ni amatoo leen yaakaar si justice bi. parce que décision yi a tranché nga xamante ne moom la Ousmane Sonko nekk di hmm. jànkonteel da leer ni carrément lu si ëpp lu si ëpp justice bi tëddeewul njaaxanaay parce que bu ñu defee ay rappel lu si bëri jaar na fi sax du ñu gis nañ ay preuves yu si jot am problème mu Mame Mbaye Niang bi ñëpp gis nañ la fi jot a am. Mm. donc bu ñëwaatee ba li nga xamante ne moo di problème de parrainage yi ba tey ñu siy tiré en conclusion bi nga xamante ne askan bi yëpp moom nañ moo di ñu jokk ay fiche de parce que man tey mënuma concevoir li nga xamante ne tey moom laay réfléchir chaque jour di si xalaat ki nga xamante ne moom amul dara dara dara li nga xamante ne ay preuve nee naa la gis nga état du Sénégal dafa foor foor bi nga xamante ne organisation bu mu yor man defe naa ne lépp li nga xamante ne bëgg na ko da koy daal am. Hmm. mais jusqu'à présent mënul am li nga xamante ne bëgg si Ousmane Sonko donc on se pose la question jusqu'à présent point d'interrogation bobu la ñu war a mën bu baaxa a état ak bànqaas yu mu yor ak organisation bu mu am ak lepp li nga xamantene mom am nako ci ay pouvoir ba tay mënul trouver li nga xamantene modi luy tax. ba tay deugëm taxaw kon war nañ mëna xolaat bu baaxa ba Ousmane Sonko moy kan ak avocat mi lañ nekk di liggéey. donc euh, nga bëgg né malgré euh, les avocats de l'État li nga xamni tam itam ñu koy teg sur la table et que Ousmane Sonko toujours des arrivé di daal leen li nga xam détrôner exactement. xam nga les formes, forme bi chaque jour fa la ni di hmm. chaque jour si forme bi la leen parce que étude da nga koy def si fond ak forme. Hmm. donc boo xoolee forme yi nga xamante moom la avocat yi di chaque jour sur la table moom méngawul ak li nga xamante ne li tax ñu war qui mën a inculper ki nga xamante ne Ousmane Sonko. Hmm. foofu rek foofu rek chaque jour foofu la ñuy donc yan stratégie ni mën a est ce que man sa gëw ma ni sama jàngat ak li est ce que ça paraît nañ pour moom.

bobu moo tax démocratie bi sa di gëna a gina parce que am institution yo xam dañu wara a ay institution yo xam yu indépendant dañu wara a mais mais aussi il y a la séparation des pouvoirs on a dit ce qu'on vient pas même s'il y a la séparation des pouvoirs actuellement au niveau de ce pays le président de la république englobe tous les pouvoirs celui qui détient tous les pouvoirs actuellement loolu moo mu mais comment mais comment législatif parce que tay bo xolé juge euh, bo xolé justice parce que bo xolé justice bii nii moom waxoon na ko si njëlbeenam nee na peut-être am na li nga xamante ne mu ngi am waaye moom moo si teg loxoom. Mm, dossier yi nga xamante ne tey dañu war a amul benn dossier bi nga xamante ne juge yi war nañ ko jot ñu war a juger nit di si teg loxoom warul am dañ ko a ne justice bi indépendant parce que justice a a jël a bi tey tëdd na njaaxanaay. est-ce que kon justice bi tëdd hmm. na njaax te justice bi dafa war a tëddee njaaxaanaay te magistrat yi nga xamante ñom ñoo engobe li nga xam moo di tête justice bobu noonu ñoom ba tay on se pose des questions mm. jusqu'à présent lan mo nek sen liggéey mm. parce que mënuñu len changer di len changer ba tey mënuñu trouver ñi nga xamante ñoo di les bonnes personnes yi nga xamante ñom ñoo war mëna ngank li nga xamante ne déroulement justice bi nga xamante mom nañ yaakaar te mom mo am doole bi nga xamante askan bi kenn mënu ko teggi tank donc on se pose la question jusqu'à présent askan bi lu muy xaar dëgg-dëgg moy justice bu indépendant bu équitable mais buñ dé demee ba suñu justice mënu mënatul équitable est-ce que duñ def comme ñeneen ñi c'est lu ñuy def parce que xolal dekk bi jamono ji ñu nekk ni le pays va mal. Hmm. on comprend même pas on cherche même pas à comprendre amna ñi nga xam dañuy wax sen propre intérêt rek mais intérêt général lañu wara jital fallu jiital Fallou tant que mënuñu jiital intérêt général chaque jour la ñuy nekk si problème té dekk bi néna la pour mu dem foog ñu jital intérêt général ñu baye intérêt personnel bi intérêt personnel bi mo ci ñëwa ci li nga xamante modi ci wa yewi Askan Wi parce que ñom ay charte ñoo leen tënkoon te charte yoy non Ousmane Sonko bokk na si ñi nga xamante ne si ñi nañ charte yoy d'accord dinañ si ñëw dinañ papa aujourd'hui ak mutisme bi nga xamni tam némé nemmeeku nañ ko euh, si opposition bi exactement man alors Arfan euh, Abdoulaye mhm. aujourd'hui li nga xamné que modi di euh, Ousmane Sonko veut réquisitionner le juge euh, de ko récuser justement euh, il a récusé li nga xamné que modi le juge jàpp ni je euh, mom donné déjà par rapport à cette affaire exactement est-ce que vous na ni itam réquisition une suite favorable. suite favorable. parce que le juge Abdoulaye parce que déjà si juge déjà si dossier donc.

même buñ ko changer wu sax man gëm naa ne même buñ ko changer wul moom dina jël li nga xamante moy décision bi nga xamante bi tax ay compétences mëna jëm ci kanam waaye tam bii tax ñu gën ko mëna sam way tax bi tax ñu gën ko mëna respecter parce que bu jëlul décision bi nga xamante ne mais associé de neutralité ak d'impartialité est-ce que tamit mu daal di jël li devant peut-être ñu daal di changer juge bi indi kenn ko xamni ni peut-être il a toujours été neutre jëm ci walu nu mel ñu daal ko koy parce que pour mu daal di atté lu nu mel moy le juge rapporteur xam nga le juge rapporteur tay bo gisé gaay yi bu ko wolu ñuko ko hmm. buñ dem ñu wolu tu ñu nit ki rek am na li nga xamante ne moom la si xel di maat parce que man tey su ma la wóolulee du ma nangu sax di wax ak yow su ma la wóolu est-ce que dinaa la dénk sama alal hmm. su ma la wóolulee est-ce que dinaa bëgg jàmpante ak yow su ma la wóolulee du ma la ñeme donc ñàkk wóolute boobu noonu moom laa lay wax ni chaque jour foofu mooy poser problème parce que bu ñu demee ba tey mënatuñu wóolu ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk li nga xamante ne askan bi donc on se pose la question jusqu'à présent parce que tey man war naa leen a wóolu keneen ak keneen war na mën a wóolu justice te defe naa ne amatuñu benn benn benn benn certitude bi nga xamante budul bu wolu ki nga xamante ne juge parce que juge ñom ñoom ñoo fi nekkal askan wi justice bi mo fi nekkal askan wi mënuñu teggi leneen japp leneen parce que dëkk bi ci boppam dafa nekk ci ay charte ak i nombre nombre yooyu noonu yëpp dafa tënku ci constitution bi jaarale ko ci justice bi alors.